samadu ينسوان الناس nous aussi nous atteignons chaque moment bi loo xam ne jënd ci boppam kenn mos naa wax ne dem naa ci sëriñ bi mu wax na ko yitte boo ko laajee sax li mu wax mooy aw ma jënd yitte lu mooy lu jëm ci dëkk sëriñ Tuubaa bi mais nag ñu ngi ciy góorgóorlu lépp gis nga ko tamit nga ci sax nga ci gërëm bu baax moom rek muy Cheikh Sidi Moukhtar dafay nekk di jëmmi sëriñ Tuubaa waaye mat ko sax ndax ba nga xam ne ne Sëriñ Tuubaa moo doon Rasulullah loolu nag feeñ na jëmm bi teg jii ndax mboolem ñi nga xam ne bokkuñ ci tariixa bu mu génn sax nongul nañ ko xam ne jëmm la joo xam ne yow bitu yàlla la dara ñàkk na nii ko ci am ndax bu gis jëmm nga xam loolu yi doon kiimaan ndax képp koo xam ne nekk def Sëriñ Tuubaa moom rek képp koo xam ne nga war a mën a def ndax jotaayu Sëriñ Tuubaa day jataay boo xam ne ku fa toog ku ne xam-xamu Serigne Touba ak am-amu Serigne Touba ak man maanaam lépp da nga koy ràngoo ci ku toog ci jataay bi lépp na ci sa bopp am na suñu kilifa bu baax bu daa wax ne Serigne Touba mboolem lu baax li nga xam ne am na ko def na ko ci gaal gaal gi rek mooy ak fulkul masuun fulkul masuun la boo ko déggee mooy loo xam ne dañ ko sensé ba mu fees boobu suuf sax xëy na ci gaal boobu yi nag mu daa wax ne ceeb bi nanguwul yoo tax te ki ko fi nekkal dafa ci ci loxoom lépp lu ci am bëgg ci moom ci am bëgg am ci moom nga jàppal ko moo tax as Cheikh Ibrahima Fati mi nga xam moo doon jëwriñu sëriñ bi daanaka koy nekk bi am na commencé wér bi ñëw ci moom mu yóbbal ko ci as Cheikh Mouhamadou Moustapha boo ko ne boo nga yëkkati aw fas jox ko nekk mu ñaanal la ndax ku fi nekk Sëriñ Tuuba yàlla suñu borom day mus moo tax kun fa yëppoon bi nga ne Sëriñ Tuuba da ko defar moom mbooleem ko fi nekk mu ngi ci sëriñ teranga la teranga yoo xam ne yow mi nga xam ne loo soog ko lépp loo xam ne bëgg naa ko nag nga defal ma ko mu nekk automatisme lu Sëriñ Tuubaa bu dee suñu borom ko rek waxaat ci beneen bay wax ne yaqulu lii kullama ahwa min atarika lépp loo xam ne bëgg naa ko suñu borom si am nga defal jëndul na ko sax kon Sëriñ Tuubaa nañu xam ne mboolem lu baax suñu borom dafa dajale ci moom bis bii nag nga xam ne président ci di bisu màggal gi nga xam ne daa ñëw ñëw def ñaari benn tànk bi mooy jiite gi nga jiite réew mu Sénégal bu kër Sadio Dane ak ñoom te li la waroon ci dëkk bi ni ma ko waxee dëgg waaye ba ca mooy nga ñëw fi doon taalibu kon nag jaar na moo wax ci jenn meññeent bi nga xam ne Sëriñ Tuubaa waxoon na ne tukki bi am na Sëriñ Tuubaa dafa waxoon ne ay gëstu. bokk na ci mbóot yi nga xam ne exil bi ma defoon am na mooy suñu na ma samay noonu njëkk ma defee wax ne suñu borom xamal na ma loo ne jànguñu ko wax ne suñu borom tam ci sant bi fukki at yi nga xam ne def naa ko exil muy juróom-ñaari ci géej gi ak yu daan ate suñu borom defal na di mën a ukkandiku ci mbooleem yoon bi wax dëgg suñu tool biir bi itam defal na ci mbooleem koo xam ne suñu tool naa moom la ci wax ak texe na soppi moom. defal naa ko ci biir bi itam képp koo xam ne malaayika nga suñu tool defal na la ci soppi nga soppi wax dëgg itam mbooleem diine ñoo ne gëm na yàlla itam suñu tool def na nga soppi moom am na feneen fu mu koy بيتعلق بسين أسلموا من دين عصر دون ما بمشتون مرة سيدوا لكل أحد بدن أخرى بنعمل من يرى دين الرجل تفهم بيان من يرى العرب وحن من قاس ما لم يره بما يرى أراه ما يدنو إليه ما نعم كان كل ما يجيزه تلقى بسيطة بقوم الجميع moo di euh, Cheikh Abdoul Ahad Mbacké bi nga xamante ne nii àgg nañ ci élection 88 boo coow dafa bari lool ñëpp coow ko Cheikh Mourou Badara Diop ne ko Mbacké dama dafa amul jaaxle jaaxle ñu ma jaaxle mooy ñëpp dañoo da ngaa wax ci kàddu gi ca rajo bi ñëpp dégg xam nga ne nit ñi fasoo wuñ ko loolu nag am naa ci jaaxle bu baax. Cheikh Abdoulaye Mbacke def nit ñi de bu fekkoon te génne ñëpp teg leen ci benn balance teg na ci benn balance sans benn jëmu day daal day mën nañu wax ko ne ko xam nga tolloon bay wax de bu fa bu Sëriñ Tuubaa def pare dana wax daanaka nit nag bu ñu koy liggéeyoo day xam ne dañ koy liggéeyoo. kon la kon la jox ko kooku lu mu la def lool mu ne ko dalaa koy ma ne ko doon jox seen alxuraan loolu la doon ma ne ko laa jàng alxuraan ma ne ko man nag dañ koy liggéeyoo nit nag bu ñu koy liggéeyoo day xam ne dañ koy liggéey loolu moom kon nag dañoo xam ne sëriñ bi ko xam responsabilité bi xam na fi li a wax xam na fa mu war a def waaye nag bu a def dara wax ndax koo xam ne dañ dañ noppali ci wax yi di wax sëriñ bi wax di wax wax nañ ne sëriñ Tuubaa ëpp na ndax sëriñ Cheikh Sidi Moussa amul dara ci àdduna loo xam ne mën naa koy sotti kenn xamul yaakaar naa loolu àdduna si commencé nañ ci am ndax koo xam ne bala ngaa dugg dara ñoo dindi ko dafa koo xamul dara loo xam ne nii war na koo màcc sa kanam wala wala day jaxal xam naa ci bañ a guddal ndax jaxal gàtt gudd yàgg na. sëriñ bi itam waxtu bi fii daal ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñu fi teew ñëpp yàlla suñu borom di leen ñaan di def leen toog yàq di dañuy faral di leen jàpp ñëpp di leen ñaan ak suñu borom ne te di ko gërëm. bi nga teg seen i koor bi yónnee na ay ndaw. ne bi mu yegsee ci koor bi yónnee na ay ndaw. ne ñu teertu ko foofu ci il bon ne sëñ Bachir Mbacké Cheikh Abdoul Khadir mii moo ci jiitu président ne ñëwum fii daal war sa bett kenn ne fii kat moom dafay mas di ñëw ne booba taa nekkul dara ci gouvernement bi ba mu nekkee étudiant ne booba la ko waajuram mu teel ma papaam indi ci waa Daaru Salaam yi toog ñu ja ñu jaari da ne diggante bi moom ne da koo wax a wax ba nga xam ne yaakaar na ni ñëpp xam não nenhum tey ku mel ne sëriñ Abdul Xaadir Mbakke te booba sëriñ Abdul Xaadir nekkul xalifa ba ci sëriñ Saliou nii ba ñu xamante mu di ko seet si ne booba sëriñ Saliou nekkul xalifa ne ba ni mu yegsee ci Cheikh Modou Lamine Bara ba ni mu yegsee ci Cheikh Sidil Maxtaar ne président mu ni kon nag moom ne ñëwam Touba daal du war a bett kenn ne xëy na xëy dafa am lu rek ne fii mu nekk dafa nekk léegi président de la république du Sénégal mu ne dafa waxoon ni moom kat am na jullit laa président de la république la waaye man nag am na fu ma féete ne boobu benn naqar ne boo demee ci réewu chrétien yi am na ay protestant ak i catholique waaye ku ci nekk da ngay waat ci ne fa ñu fekk ko ñoom nëbbuñu ko ne kon moom itam lu tax muy nëbb fi mu féete. mu ne boo tax nekk nañ mu ne man daal yow murit laa tànn. ne réew mi nag du ay murit nekk fi ne. ne chrétien yi sax ñu fi. ne laa war a jàppale. ñëpp laa war a dimbali. waaye bu kenn fàtte rek. nem mundo da ordem. amul benn tarixa boo xam ne fii Sénégal dimbaliwuma la ci ay jumaa ki ak yi ci des waaye du mën a yem nag kat ak fii ma bokk nee léegi tey jii ñu ko fi indi nee loolu mooy ñu ko fi daa indi rek ñëw siyaar seen bi nuyu ko waxu fu ma toll maa ngi gërëm yàlla rek sama yàlla dara nit mi ngi gërëm yàlla mais wax la rek nga ñaanal mu dellu ci liggéey bi nga ñaanal ko ak fi ma jëm ak élection mais moom li ma gëm dugalal moom dafa gëm sa ñaan mais comme ni ko sëriñ Bachirou Mbacké Cheikh Abdoul Khadir waxe sax yow li la boole moom ne yàgg na. sama effort yëpp daal sama kenn kattan ma def ko fii ci Touba mais dafa gis ñeneen ñi di ko def seen réew réew yu bari dañuy am bis boo xam ni dañuy mayante sëñ Basi sëñ Bas wax ko moo tax loolu la we muy ñaan sénégalais yépp ñu jël habitude boobu ne habitude ne dafa am ci bis bu muy ko ne lu sunu maam yi bàyyi lépp boo ko toppee da nga gis bis ba lii nag lay yaakaar na ni ci loolu bokk moo di ku nekk ak na nga ak fu nga xoolee nga nga dimbali keneen nga jox ko dara loo xam daal moom dana ci bëgg moom dana neex ci xol nee bokk sa sàrxe na nee sàrxe beneen affaire am na ñeneen ñu ko yor si loolu la ñu yore ñu di ko def ndax kii moom ak mu nekk benn bis ko ci def moom. nee loolu daal moo di soxlaam lu muy soxla Sénégal nga ñaanal ko ci rek nee yaakaar nañ daal loolu mën naa ngi jàmm ci réew mi rapproché xol nga ñaanal ko it nag fii nga xam ne jëm ci élection yi. jàmm rek am Sénégal mais Sénégal nee dafa mas a yàgg ci jàmm nee élection yi fi amoon bi dëkk nee loolu amatu fi léegi élection yi nee du moom du keneen. ambassadeur réew France ak Amérique. dañ ko ñaanal ni ko dañoo bëgg. fichier électoral bi. ñu seet ko daal. ak opposition bi. mu ngi leen bisimilah. lu mat ñaari at. ñu indi seen inspecteur. et opposition bi indi ñoom seen ñoom it ñun suñu spectacle gëstu ko seet ko fu nekk ni bii fii sa tëral daal moom ba bu baax la amul benn problème mën nañ ci laaj woote nee ak xëy na daal am na nag yoo xam ne mënoon nañ koo jëkkali mu ne bisimilah ñu jox la loolu lépp ñu def ko moo tax kenn déggatul coow nee kenn du ci taw ci dara dara li ci des mooy bindu yi yaakaar naa ne taw amu ci de ku bëgg bindu daal nga li ci des rek mooy élection yi ñëw ku ne nga dem sànni sa kat foofu doo ko rek dara bëgg nga ñaanal ko fi ne am na ñoo xam ne dañ ñu ne kat loolu du fi amee loolu nee nañ du fi amee mais position la. moo war a def listu candidat yi. moo war a def listu candidat yi. ñu ne kooku it duñ ko bàyyi mu def ko. waaye nag loolu su ma affaire la lu ko digaale ak ñoom. ne dañ ñu fa teg pour. jaarale fii ci yoon. ñëpp jaar ci yoon. amul kenn koo xam ne mën ngaa jaar ci yoon bi. tracé ne dafa bëgg nag. ñooñu buñ fi yegsee mu Mbàkke nga digal leen rek bàyyi leen di provoquer gouvernement bàyyi leen di provoquer gouvernement gouvernement bu ne deful dara bis boo xëyee ne tamit jëlee ko fi te wéeroo ko fenn yow demoo ci élection ba jox la léegi jox ñu la poids nga ne man fii foog ma def loolu ah loolu nag doy na waar nee nañ nag moom. bi si élection yi dañuy jéem a wax yooyu nag wax yooyu nag léegi dafa baaxul ci réew de réew mënul woon Sénégal réew mënul woon Sénégal da nga am difficulté te borom xaalis indi seen xaalis ci réew bu ñu déggee réew mi day tax mais duñ fa yóbbu seen xaalis waaye seen wax yooyu nag loolu na maa yàqal loolu dara la léegi xale bi investir na di gën a yokk ci Sénégal rek ñoom bu ñu gëmoon yàlla dañuy nopp li nga xam ne yow yaa koy ñaan mënoo fexe ba mu am pro lu ne nga def provocation mooy tool moo leen jafe de waaye nag. ñaan Mbàkke daf koo wuuf daf koo yiir ñu ngi ko bàyyi fi mu ne kenn du fi doxul léegi loolu dafa bëgg mu leer dañuy wax toujours ni boo ko tooñee mu baal la loolu ma ko loolu mën ko ci continuer ba tey sax waaye waaye tooñ Sénégal da laa nangu réew mi jàmm rek ñu fi bëgg ak seen ñaan ak ñaanu sëriñ dana fexe ba bu ñu wootee benn parti wu dem benn parti wu dem ñu ci jamono liggéey ñu ci jamono liggéey liggéey réew mi loolu daal ndax ki fi indi ndax dama am responsabilité ndax dafa am responsabilité li ñu ko jox nag moo di mu mu téye réew mi ci jàmm kon nag ku jóge fee bëgg a yàq nee ndax moom du ko mën noonu loolu daal nag mbir mi noonu rek la mi ngi lay bu baax yëg yëg na ñaanam ci ci yaram wax wu ne kon nga ñaanal ko ñaanal Sénégal ñaanal gouvernement bi mi ngi nuyu nag si fi nekk di fay fi nekk yëpp dafa mel ne suñu njaboot rek dafa nekk. ñëpp xamante lii daal moo di ko fi indi mi ngi lay nuyu te di la ci turam famille ci turu gouvernement bi ci turu sénégalais yëpp. bisu màggalu Touba dañu ko bisu màggalu Touba dañu ko def fee. maanaam ñu ko fekk kenn du liggéey. te ñu tey ñu fay la. téléphoné pour gërëm. nee ñu ko téléphoné pour gërëm ko. am na ci kilifa yeneen tarixa. am na ci kilifa si téléphone ko gërëm koo ci félicité bi. ko ñun ñoom kat am na lu gis noonu. dañ koy li nga def rafet na baax na. nee Abdou Aziz Sy Senior moo ko téléphone. félicité ko ci loolu. nee ku mel bis Sëriñ Tuubaa bi ñëpp ko am. ñëpp ñëpp ba ko bokk xanaa kay ñun dañ seen jiitu rek ñi ci des ci lañu bokk kon ñëpp a ci profité sëñ bi mi ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax jërëjëf. jërëjëf Fatou Mbaye yéen amiin Mbacke amiin ragal bi te day xëy na wërsëg